jërëjëf merci beaucoup Cherif. mu nekkoon yéenekaay yi ak la ñu xëyee pàcc bu njëkk bi Malick euh, actu commentaire bi dañuy taxaw mu mel ne nag comme li ñu naan euh, les choses euh, sérieuses commencent ndaxte sept sages yi fi mu ne la balle est dans leur camp puisque clôturé nañu li nga xam ne moom mooy liste dépôt yi 79 candidats la ñu wax juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci lu jege ñetti téeméer ñi demoon retirer seen fiche waaw euh, deux cent 266 ñoom ñoo ni woon bëgg dagaan baatu pour nekk président de la république waye étape bi nga xamanteni moy collecte de parrainage bi taxna ñen ñu bari ci ñom xamnañu ni kat seeni dossier amuñu benn chance pour mu jall motax ñu ci bari renoncer nañu ndax bo démé ci askan bi bëgg out ay parrainage te 1 du corps électoral ñom ñoo la war ci lolu nga am nombre bi ñuy laaj ñu ci bari xamnañu ni mënu ñoo dem euh, ci élection bi ñu dal di renoncer donc ci 266 ci dem nañu ba fimné né nañu 79 ñom ñoo ci dess 79 19 yooyu nag euh, euh, jël nañu seen dossier jébbal ko conseil constitutionnel conseil constitutionnel ni ki suba di alxames à 10 heures la ñuy def tirage au sor démb sax maa ngi wax ni par ordre de dépôt la loolu bu njëkk la woon waaye léegi soppi nañu ko. Mhm. dañuy def tirage au sort. tirage au sor xam ngeen ko mooy rek euh, di jukki par kenn. Mhm. bu ñu yëngalee ñëpp jukki ku njëkk a génn ñu saytu sa dossier. dossier bi nag bu ñu koy saytu am na ay conditions yu nga xamante nii moom mooy mun a tax ñu valider sa candidature wala déet code électoral bi ak constitution bi définir nañu ko démb rek Chérif limal na leen dossier bi naka la war a demee yan pièce nga ci war a joindre pour que dossier bi complet complet dossier bu complet ci la ñuy njëkk statuer d'abord xool ndax dossier bi recevable na wala recevable beneen bi ci des nag mooy étape bi gars yi gën a ragal moy le filtre des parrainages. fofu buñ fa yeggee ñu bari euh, dinañu daanu. amna nak ñu nga xamante ni nii dañu sécuriser. sen parrainage parce que parrainage euh, bi nga xamné ne euh, le parrainage des élus bobu la jël parce que ñom xamnañu ni. amnañu suffisamment de députés pour mën a sans problème ci parrainage boobu donc am na ñu nga xam ne côté boobu duñ leen téye mais bu ñu demee ci affaire doublon yeeg ku nekk nee nga nak defar nga say fiche filtré nga defar nga say mbir ba nga xam ne amuloo doublon wóor na la ni li nga déposé mat na ba nga denc sa réserve ba bu ñu la nee mataloo nga mën a mhm. mais en tout état de cause boobu mooy étape bi gën a bi gën a jafe mooy bi gën a jafe te bu ñu eggee ca cëppaandaw ja sur les 79 pratiquement xam naa ni peut-être une dizaine boo moytuwul ñoom ñooy mujj ñoom ñooy mujj jàll. Mhm. mais euh, li ci wér te wóor daal mooy la balle est dans le camp du président Mamadou Badio Camara. Mhm. magistrat de son état et puis qui était l'ancien président du conseil constitutionnel. Mhm. ak yeneen juróom-benn yi nga xam ni ñoom ñoo ànd ak moom ci liggéey bi. li wér te wóor daal mooy bu ñu xësee ba yegg foofu. ba ni Faati bokk nga. Malick bokkoo. Malick amatul sañ-sañu def recours foofu la foofu foofu la tëni ji di wasaa mhm. kon dal ñi ngi xaarandi euh lan moy xew mais li mën li ñuy ñaan rek moy mhm. na lepp teggu ci yoon c'est ça parce que sage yi lu ñu munti def tamit mhm. dañ koy motiver te motiver motiver bi paasewul jël constitution au Sénégal ak jël li nga xam moy code électoral bi tek ci table ci très bien Chérif waaw je pense que lu am solo la ci état bi nga xamante ci la nek déjà parce que ni ñu ko waxee ci 2019 ba léegi moy élection présidentielle yi muju mujj mm-hmm. parrainage dafa bokk ci li nga xamanteni dañ koy sakku ngir euh, candidat yi mën ko matal mm-hmm. bobé parrainage na comme ni ñu ko waxee euh, gis nañ ni bi pas dina am tirage au sort parce que jangat lo gis rek dañ ci jàngat parce que expérience bu njëkk bi mm-hmm. demoon nañ sa ba ay xët-xët am ci gaay yi di buuxante fa nga xamante moy ci conseil constitutionnel xëy na tax ñu indi ki kiiwu tirage bi comme ni ñu ko gisee DGE defoon ko ci élection législative ne dina comme ce ci 10 jeton mm. tirage par ordre euh, ni ngeen ko gagné dina mën tax nit ñi mën yewé yewee ku am ci ñoo xam nak opté nañ pour euh, lii di parrainage des élus maanaam soit euh, nga am 120 à 130 maire wala con président conseil départemental wala nga am 13 députés yi nak ñi ko am xeyna na mën am jafé jafé te c'est moyen de risque parce que fofu doo fa am mbiram doublon doublon yi surtout les doublons externes yi ni wax fofu ñi nga xamante ne parrainage des élus lan laaj entre 0,8 ak 1 pour bi nga xamante mom lan laaj bon même 79 yi dañuy wax mais bu fekkoon ne ni parrainage yi jaar nañu yoon sax même si Sénégal 79 yooyu mën na bokk parce que boo ko multiplier ak li nga xamante ni mooy minimum bi ni laaj. Mhm. doo jot sax euh, li ni laaj fichier parce que ñiy parrainé mooy ñi war a voté. te ñooñu presque daanaka jege nañ 7 millions te euh, c'est moins de 4 millions boo ko multiplier ak 79 yi nga xamante moom la def Sénégal malheureusement. Mhm.

dix neuf conseil mën na la am ay quarante huit mm. nga dem

je pense que dogal boobu nag après ñuy def ay recours rek jëm ci wàllu woowu aussi dina ci nekk parce que après am na yeneen étape bi yoo xool nga xamante ne après le parrainage ñu koy xool mhm. comme Malick l'a dit aussi conseil constitutionnel moom li ñuy wax ay décision am ñëpp ci war a tënku loolu la leen sart bi may mhm. te buñ jëlee dogal aussi dogal bi amul recours mën na cee bañ am donc bu fekkante ni nee na diw day bokk tamit mbindeef mënut a tere diw du bokk bu ne diw du bokk ici motiver ko am bien sûr ak ay décisions après. Mhm. Euh, dañ koy rendre public seen conseil greffe bi dina ko affiché. Mhm. am nañ benn site internet boo xam ne aussi lu fa mën a xam aussi dina xam jëm ci organisation yooyu élection. Mhm. très bien mu euh, mbir moo xam ne Ibou euh, niñ ko Chérif ak Malick waxee daanaka daal léegi ñu xam. fan la wànneen di mujjee ki gëtam. Mhm. muy premier tri bi soxna Fatou waaye man ci aspect bi may taxaw mooy. Mhm. Euh, le cas des cent quatre su fekkee samay calcul baax na ñi nga xamante ne ñu euh, bokk rek ci ñi nga xamante ne ñoom la ñuy saytu suba. loolu lan mooy euh, li tax àgguñu. loolu defe naa aussi jaar na ñu taxaw ci. Mhm. pour bu fekkee am na lu ci génne xëy na. ëllëg ci yeneen échéance yi mën na servir de de leçon aux différents candidats. Mm -hmm. parce que coow li bëri woon na nag bi ñuy retirer fiche yi. Mhm. mais gis nañ ne euh, nombre bi wàññeeku na carrément. Mhm. ana lan moo waral ñooñu. egsi wuñu lan moo tax donc yaakaar naa tamit war nañ ci taxaw bu ko mhm. defee mhm. dafay bokk ci liy jëmal le processus électoral donc euh, ndax ñu bëggoon peut-être ñu xam leen wala li ñu sumboon moo antuwul mhm. yooyu yëpp c'est des interrogations yoo xamante ne war nañ ko posé wu su ko defee euh, ëllëg ci yeneen échéance yi ni ma ko waxee léegi ñu mun ci tirer ay leçons mu ci tirer ay leçons ëllëg incha allah euh, ni ko Chérif waxee mbir mi ma ngay xew Il faut faire que cette marque-là, nous, nous sommes tous les deux qui vivent un jour au Sénégal, un jour dans le monde.